waqul أعوذ بك رب من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم على تلعة الحق بالحق الكنز الأعظم إفاضتك منك إليك إحاطة النور المطلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi tedd yi kilifa yi diine yi mbokk yu ñuy teewlu gannaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di leen niyoo di leen ziyaara di leen jox seeni wàccuwaay di leen baalu ak te di leen baal rawatina kilifay diine yi waaye rawatina sama sang sama sëriñ sama wasila ci yàlla di sayyidi wa mawlaay al sharif muhammad ali haydara yal na ko yàlla sàmm ko lafal ko cat ak lammiñ lakk ko fu bëddul egg zahiran wa batinan inchaa allahu ta'ala mbokk teddi dal leen ak si suñu émission bi di silsilatu daf u shubuhat wala raddu ala shubuhat wala daxdu shubuhat alwaahiya inchaa allah ngeen ci ànd ak dongo daara bi di a cheikh Saïd Abdallahi Diallo tey ñu dal ci numéro juróom ñeenteel ba euh, numéro ñeenteel ba kañ euh, numéro bi tey su bi tey dañ si daldi di waxtaanee ci ñenn ci ñi nga xamante ne si suñu mbokk waxaa bi yi euh, dañuy dëgg ñun chiit ñi saay bu ñuy waxtaan si suñuy manaabir dañuy daldi wax ne imaamul xusayn alayhi salaam mi nga xam ne moom la noonu yàlla ak noon yonente bi daldi di boomoon fale ci Karbala ci eh, anam ju méttee métti moom imaamul Xuseyn alayhi salaam keroog bi nga xamante ne boom nañ ko kam moo ko dencoon maanaam kam moo ko suuli woon te ñun ahlul bayt alayhimu salaam dafa am benn kaddu ju jóge ci suñu kilifa yi njëkk di ahlul bayt alayhimu salaam ñoom ñoo ne la yadfinu almasuma illa almasum koo xamante ne c'est un infaillible ku yàlla muccal la ci bépp ayib ci bépp njuumte ci bépp bakkar kooku du ko mën a denc ci xabruwam ku dul koo xam ne ku mel ni moom la te keroog bi nga xam ne imaamul xuseyn salaam yàlla suñu borom subhaanahu wa ta'ala dal dogal mu daldi di génnee àdduna foofu ci anam ju jooju ci soosu ñuy naan Karbala wala Naynawa wala ardu taf keroog ki ko waroon a succédé kenn la woon te kooku mooy imaam Ali Zeynul Abidin alayhi salaam imaam Ali Zeynul Abidin moom mooy doomu imaamul Xuseyn salaamullahi alayhi te keroog bi imaamul Xuseyn biñ ko faagaagalee imaam Ali Zeynul Abidin dafa nekkoon koo xam ne dafa feebaroon. ba ñu koy woowee sax ci yenn téere yi alilu karbala ba tax na kii nga xam ne moo nekkoon noon yàlla boobu doon jëfelante ki yazid gouverneur jooju tuddoon ubaydullah bun ziyad laanatullahi alayhi moo nekkoon gouverneur kuufa bis yooyu buñ ne woon kuufa kuufa dafa ëmboon lu bëree bëree bari ba tax na moom ubaydullah bun ziyad dafa fekk dafa tëjoon teg ko ci kaso bi tëjoon kii nga xam ne mooy imaam Ali Zeynul Abidin ci kaso ba te ñun siit ñi nag nee nañu du denc koo xamante ne masum la lu dul koo xamante ne masum la te keroog beneen masum amul gannaaw bu ñu reyee imaam al Xuseyn alayhi salaam kudul doomam di imaam Ali Zeynul Abidin te doomam ñoo ngi koy denc ci bunkeer yu gën a métti ci bunkeer yu lëndëm kurus te diggante Kuufa ak Karbala c'est des kilomètres yoo xam ne yu bëri la c'est des cent et quelques c'est des centaines de kilomètres donc naka la imaam ali zeynul abidin alayhi salaam mun a jógee ci bunker yooyu war a dem denc imaamul xuseyn alayhi salaam ak distance bu mel noonu donc mushkila bi mooy waxaabit yi dañuy dal di bu fekkente ne imaam ali zeynul abidin alayhi salaam taarix dafa l'histoire dafa jàngali keroog bu ñu reyee imaamul xuseyn alayhi salaam moom imaam ali zeynul abidin ñoo ngi ko dencoon ci kaso ubaydullah bun ziyad fale ci kuufa première bi mooy yéen chiit yi nee ngeen imaam ali zeynul abidin moo dencoon imaamul Hussein parce que da ngeen du denc koo xamante ne masum lu dul ku mel ni moom ku nekk masum te keroog bu imaamul Hussein génnee àdduna kenn nekkul woon masum ci kaw suuf ku dul ki nga xam ne mooy imaam ali zeynul abidin seloo yéen chiit ñi naka la imaam ali zeynul abidin jógee foofu ci kaso yooyu noonu naka la fa jógee te kenn xamu ko mu dal di dem ba Karbala yegg fa dal di denc baayam di imaamul Xuseyn alayhi salaam sans waruwaay loolu nu mu mën a nekkee beneen subaha bi mooy naka la tamit imaam Ali alayhi salaam dal di teewee denc kii nga xam ne mooy saxaabi bu tedd boobu di Salman al Farisi imaam Ali nekkoon fale ci Madina Salman al Farisi nekkoon fale ci Madain yooyu tamit nekk des centaines de kilomètres seen diggante. loolu nan la mun a nekkee mbokk yi ci loolu la ñuy dal di ñëw tontu incha allahu ta'ala ñun si suñu pas-pas dañoo gëm ne yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala dafay maye waaye buy maye tollalewul nit ku ne ak li nga yellool comme ni ko woykat bi waxee kullu ina in bima ma fiihi yandaxu ndab june ak li mu attan ndab june ak li mu boo xoolee yonente yàlla yi yàlla suñu borom subhanahu wa ta'ala def leen préparer de telle sorte que dañuy mën a attan wax ju jooju di al waxyu di waxu yàlla dañ koy mën a attan yàlla sol leen ko tey nitu ordinaire mënul attan loolu naka noonu am yeneen nit yoo xam ne buñ fi jógee ñoom ñoo war a continuer lettre bi nga xam ne prophètes yi moom la ñu andi te ñooñu ñooy awsiyaa yi ñoo nit yàlla suñu borom subhaanahu wa taala daf leen tàggat ci benn anam joo xam ne am na ay mbir yoo xam ne moom daf leen di koy jox te dañ koy dal di attan awsiyaa bu ñu jaalee ñu dal di ñëw ci saalixiina yi mooy nit yàlla yi nangu baax tegu ci sariya tegu ci diine bu jub ja ñooñu tamit yàlla suñu borom subhaanahu wa taala daf leen di dimbali ba telle sorte que am na ay yeneen waaridaat ay fuyudaat ilaahiya des inondations divines yuy jóge ci yàlla fekk ñooñu dañ koy mën a dal di attan parce que du ku nekk moo mën a attan mbir yooyu xam ngeen imaam ali alayhi salaam bis dafa dal di fëgg di wax ak Kumayl bun Ziyaad di taalibeem mu ne ko ah inna ha huna ilman jamma ah sama dënn bi dafa fees dell ak xam-xam waaye nag aw ma kam moo ko mun a attan ñi ko mun a attan tuuti nañu imaam dal di wax ak ku mel imaam moom wasiila ci awsiya yi bal xayrul awsiya moo gën ci wasi moom imaam ali alayhi salaam parce que mooy wasiyu xaatami nabiyin wa sayidul mursalin rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy wax ak ki nga xam ne ab taalibeem la boo xam ne bokk na ci awliyaullahi saalihin mu koy xamal ne am na ay mbir yoo xam ne du ku nekk moo koy mun a attan waaye nag yàlla si mbaaxam dafay dal di tàggat ñenn ñi dal di leen ko may loolu nekk seeni karaama mbokk yi avant ñoo ñëw ci tontu jooju eh, ahlul bayt alayhimu salaam yàlla def leen jox particularité joo xam ne joxu ko kenn kenn kenn gannaaw rasulillah sallallahu alayhi wa ali yàlla suñu borom subhaanahu wa particularité bum leen njëkk a jox mooy lépp loo xam ne sobe la li français di naan suyir tilim tilim ab salte loolu yépp yàlla def koo soril ci ñoom ñoom ahlul bayt alayhim assalaam yàlla dal di ne ci suuratul ahzab verset 33 te suuratul ahzab mooy verset 33 ci aaya 33 yàlla di fa wax ak ahlul bayt dal di leen ne innama yuridu allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tathira yàlla suñu borom subhanahu wa ta'ala len na rek la dal di namm ci yéen mooy sori leen lépp loo xam ne suyiir la tilim tilim la ab sobe la waaye dal di leen setal setal ju mucc ayib tatxiiran mutlaqan donc loolu mooy première préparation yàlla bu muy defaral ahlul bayti pour ñu dal di leen mu dal di leen sol xam-xamam moom yàlla parce que dara ndab joo xamante ne euh, boo buggee utiliser dara faw dara jooju noonu doon lu set te nii nag dafa am loo xamante ne daf dañ ko war a jàngat yàlla waxul ne li yubida li yuzhiba minkum rijsa yàlla dafa ne li yuzhiba ankum rijsa donc ahlul bayt alayhim salaam sobe nekkul woon ci ñoom yàlla dindi ko ci ñoom lépp loo xam ne sobela la lu lu leen nar jege yàlla daf koy soriloo ci ñoom donc yalla moo ngi leen di préparer ci terrain yépp pour ñu mun a attan lii nga xam ne moom mooy risaala bi ñu war a continuer te moom mooy al imaama parce que imaama c'est la continuité c'est la de la prophétie loolu mooy imaama mooy day ñëw continuer li nga xam ne moo nekkoon mission wu rasulillah sallallahu alayhi wa ali loolu première particularité la boo xam ne yàlla jagleel na ko ahlul bayt alayhim salaam deuxième particularité bi mooy gannaaw bi nga xamante ne suñu yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dal dina génn àdduna avant moo génn àdduna ci ay bërëb yu dul jeex surtout bërëb bu mujj bi Uh, yonente bi walla avant dernière bërëb ba bis boobu yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fale ci xajjatul wida waxaloon na ak nitam ya ak saxaabam ya plus de cent vingt et poussière saxaaba ne leen bàyyil naa leen ñaari mbir ñaari mbir yooyu ñooy yan yonente bi dal di ne téere yàlla bi ak sama waa kër donc particularité bi bu ko gën a rëy sax amul lu tax parce que yonente bi dafa dal méngole téere yàlla bi ak waa këram yaani yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa dal di ñu bëgg a wax foofu téere yàlla bi ki leen di koy xamal ci dëgg-dëgg xam ngeen comprendre ko mun koo maîtriser te ngeen bañ a wute mooy ñii nga xamante ne ñooy sama waa kër sallallahu alayhi wa alihi wa yàlla gannaaw bu mu leen préparé ba pare yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dal di def mission yeggali mission bu jóge ci yàlla ci ñoom ba pare ñii yàlla def leen may ay fuyudaat daf leen may ay karamaat ba tax na ci ñii la ñuy dal di wakk wasi defee ay tawassul ci yàlla ñoom ahlul bayt alayhimu salaam yalla dal di ñu may li ñu bëgg gis fa ay kaawteef mbokk yi bu ñu xoolee ku mel ni Seydina Cheikh Ahmed Tidiane abul abbaasi ahmad tijaani qutbul wujudi manbaul irfaani moom Seydina Cheikh bu demoon bay am ba am lu mu bëgg loo xam ne metti na jafe na mu daldi ko am dafay dal di def tawassul ci ñi nga xamante ne ñooy ahlul bayt alayhim salaam te mooy yonente yàlla muhammad ba yegg ci imaamul mahdi ajjala allah taala farajahu sharif ba bal bu ñu demee ci téere boobu di assawaa'iqul muhraqa bu ibnu xajar al xaysami dafay nettali ci téere boobu ko imam ahmad dafa dal di ne ñii nga xamante ne ñoom la tudd ci sanad ji mooy imaam mooy ahlul bayt yi ñii seen tuur képp koo xam ne jël na seen tuur dal di ko barkeeloo jàng ko ci koo xamante ne dafa dof kooku dof ji day wér ndax barke tuur yooyu donc ñii même ñi nga xam ne dañoo nangu topp leen si luñ leen di topp di wa di def tawassul si seeni tur ñoom rek ñoo ngi ciy gis ay karamaat yu dul jeex donc sakkamtuma la ñoom ñi nga xam ne ñooy borom tuur yooyu ñoo jëmmal tuur yooyu li si mel ni imaam ali zeynul abidin bi nga xam ne mooy mihwaru kalamina fi hadha al yawm insha allah wa fi hadhihi al jalsa donc moom imaam ali zeynul abidin alayhi salaam ci karama ak ci xam-xam bi nga xam ne yàlla suñu borom sol na ko def ko ci moom ba ñi nga xam ne ñoo ñëw ci ginnaawam lu si mel ni ñoom ah Cheikhna Ahmed Tidiane yi def tawassul ci moom ba am lu ñuy am moom imaam ali zeynul abidin bi nga xam ne mooy baayu mbill ji dafa dal di utiliser li nga xam ne mooy tayyul ard mu dal di tayyul ardi lem suuf si wàññi distance bi jóge foofu mu nekkoon ci biir kaso jooju di kaso Ubaydullah bun Ziyad nekkoon foofu ci Kufa dal di dem fale ci Karbala plus de cent et quelques kilomètres seen diggante ci tarfatal ayni mu dal di yegg barab boobu dal di denc waajuram imaamul Husayn alayhi salaam si dencin joo xamante ne ju daw yaram la ñi nga xamante ne euh, histoire boobu dina leen neex mën nañu dugg ci téere yi daal di ko liir di ngeen xam ne lu jot a jàll ci waa kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tooñal bi dafa bari woon waaye boo xoolee imaamul Xuseyn alayhi salaam yàlla daf ko def mbir joo xamante ne dafa doon wone ala nan que ahlul bayt dañ leen tooñoon looloo tax imaamul Xuseyn nangu mu daal di sacrifier boppam pour mu desal diine ji nga xam ne mooy diine dégg ji imaamul Xuseyn dëgg la moom la ñu dal di boom ci Karbala waaye tey de moom la ñuy dal di waxtaanee kenn du dégg tuuru Yazid wala ñi doon dimbali Yazid ñoom Ubaydullah bun Ziyad ñoom Omar bun Sannan ñoom Shimr ibnu Zil Jawsan kenn déggu leen bal ñi ñuy dégg mooy ñi nangoon topp ànd imaamul Xuseyn alayhi lu si mel ni ñoom Xurru Riyaahi lu si mel ni ñoom Zuhayr bunil Qayn lu si mel ni ñoom abis bun shabib ñoom abul fadlil abbas ñoom aliyul asgar ñoom aliyul akbar ñoom sayida zeynab batalatu karbala ñii la ñuy dal di dëgg ba tey parce que ñii ñoo nangoon ànd ak dëgg léegi nag kii nga xam ne mooy ima mooy imaam ali zeynul abidin di waaj di doom ci imaam al imaamul husayn alayhi salaam moo defoon kawteef boobu di tayyul ard dal di dem denc waajuram foofu ci karbala nan la ko dencee woon loolu duñ fi ñëw waaye est-ce que loolu lu mën a nekk la ci loolu la ñuy dal di ñëw incha allah taala dal di tontu waxaabiya yi nga xam ne saa su ne bu ñu waxee ngëneel wala kaawteef joo xam ne ahlul bayt alayhimu salaam ñoo ko jagoo ñu dal di ko weddi te dara jëmeewu leen ko lu dul nasbu ak ada jëmee ko ci waa kër yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk yi pour tontu subaha boobu jëmale ko ci waxaabiya yi nga xam ne ñoom ñooy dal di def inkaar imaam ali zeynul abidin la nan la mën a dencee imaamul Hussein te pourtant dañ ko dal di e, tëj encercle ko foofu ci koofa nan la fa mën a génnee ba yegg dagg kilomètres yooyu noonu yëpp pour tontu leen ci loolu wax leen ne e, lu chiite yi di wax tayul ardi lu wër la lu chiite yi di wax que imaam ali zeynul abidin moo ko dencoon moo dencoon baayam di imaamul Hussein ci kawteefu yàlla ci karaama ilahiya ah loolu lu lu lu wér peng la bal ci li koy wéral mooy soxlawuñu ibnu taymiya pour wéral suñu wax waaye dañoo andi ibnu taymiya pour ilzame ko waxaabit yi nga xam ne euh, ce sont des poussins qui aiment qui aiment bavarder ay ay ay ay ay cuuc lañ yoo xam ne dañoo bëgg rek euh, ritamballe wax wax yu du yu amul sens waaye ibnu taymiya ci téereem boobu tudd majmu fatawa ibnu taymiya dafa daldi ni dafa am ku ku ko laaj mu ne wasu ila rahimahullah bis dañ koo dal di laaj moom ibnu taymiya yal na ko yàlla yaram loolu ku nekk war nañ ko koo mën a ñaanal inchaa allah mu dal di ne hal fi haadihi l umma aqwaamun saalihuuna ah gayyabahum allahu an innaas laa yaraahum illa man araadu laajkat bi daal di ne ndaxam ci xeet gii am na ay nit yoo xam ne nit yàlla yu yiw lañ ñoo xamante ne yàlla daf leen nëbb bëtu nit ñi kenn mënu leen gis lu dul ñoom ñi nga xamante ne ñoom la yàlla nëbb bu ñu soobee feeñu ñu feeñu mu ne walaw kaanu bayna annaasi fa hum mahjubuuna bi xaalihim donte sax dañuy nekk ak nit ñi ngi leen di gis waaye duñu wane seen alxaal maanaam seen manin duñ ko wax duñ ko wane dañuy lekkandoo ak yéen naanandoo ak yéen fekk ndeysaan ñoom ñooy waay ñoom ñooy moom mooy waaja bi nga xam ne moom ngeen di wër waaye nag oyofam ak euh, suufel boppam moo tax mënoo leen koo xam mu ne waxal mu dal di laajte ba mu yegg mu ne ñooñu ñëpp wa kullu ulaika tutwa bihimul ard ñooñu ñëpp yàlla suñu borom da leen di lemal suuf si wàññil leen distance bi wayuxjab wayahujjuuna ñuy dal di dem ajji ci kawteefu tayul ardi wa yusaafiruuna ñuy dal di voyager di dem dëkk ak dëkk ma masiratuhu shahr aw sana fi saa ñuy dal di voyager foo xamante ne buñ ko naroon a dox dañ dox un Euh, wala un mois wala un weeru mi yàlla bu mat sëkk wala atum yàlla lëmm waaye ñooñu yàlla may leen kawteef joo xam ne tayyul ardi la ñoom dañ koy daal di defee loolu ci une de temps dégg ngeen mu ne wa minhum qawmun yatiiruuna ka tuyuur am ñenn ci ñooñ ñoo xamante ne yàlla daf leen may dañuy dal di naaw ci jaww ji comme picc ya mu ne wa yatahaddasuuna an il mugayabat qabla an taati am ñenn ci ñoo xamante ne yàlla def leen may eh, dañuy gis loo xamante ne xaybu la ñu koy wax nit ñi avant moo ñëw est-ce yëpp dëgg la léegi ibnu taymiya lam moo si sa tontu. donc mbokk yi ibnu taymiya al harraani ma bëgg waxaabit yi déglu ko bu baax bu ñu demee ci majmuatul fatawa bu ibnu taymiya ci juzu saabi wal ishrin ci tom vingt-sept ba ci page deux cent soixante et ak deux cent soixante deux ibnu taymiya dal di tonte tontu laaj boobu ne leen alhamdulillahi rabbil alamin amma wujudu aqwamin yaxtajibuuna an innaasi daiman fa haada baatil ñoo ngi sant yàlla mi sàkk mbindeef yépp amma nag li jëm ci wàllu laaj boobu nga xam ne mooy ndaxam am na ay nit ñoo xamante ne dañuy dal di lakku nit ñi euh, te kenn du leen gis ba faw mu ne loolu mënul nekk léegi nag moom Ibnu Taymiya dafa ne daa iman mënul nekk waaye nag est-ce que ñu lakk ba certain temps mun na nekk wala mun a loolu mun a nekk la moom dina ko feeñal ci kanam mu ne lam yakun li ahadin min al anbiya wala al awliya làkku daa iman loolu ci yonentey ak ci waliwu yàlla yi musul sax ci ñoom dégg ngeen moom ibnu taym mu ne même ñi nga xamante ne sax ay njëbërkat lañ saxul si ñoom mu ne nag walakin qad yaxtajibu rajulu badul awqat an badin badal awqat an badi nas mu ne nag nit ab góor man naa lakku ñeneen nit ña ci benn diir ci benn waxtu joo xam ne ci benn jamono joo xam ne mënuñu ko fa gis ah ñun nag dañuy naan ibnu taymiya ñun fii la ñu gëmee ne imaamul mahdi ajjalallahu rajahu sharif neewuñu la dina làqu daa iman dina feeñ waaye nag instant yi dafa làqu te lii day dugg ci baadul awqaat bi nga xam ne wax nga ko beneen bi mooy ci wàllu tayyul ardi bi moom ibnu taymiya dal di ne wa amma qatu'ul masafatil baida ci page deux cent soixante deux cent soixante deux mu ne amma laaj bi nga xam ne moo jëm ci ñooñu nga xamante ne dañuy dal di Eh, lem suuf si ci suuf si bu ñu naroon eh, jëm bërëb sangam ci eh, un mois wala un an dañuy dal di lem suuf si dal di ko jëmee une heure de temps jëm ci mbir boobu une heure de temps mu ne bu nekkee loolu mooy salaate mu ne fa haza mu ne loolu yakunu li baadi salihin loolu yàlla defaral na ko ñenn ci nitu yàlla yu yu baax yi as-saalihiin ñu baax ña man saay su ma déggee kalimatu saalih sëriñ saaliw ndeysaan day wax sama xel ndax waxam jooju mu waxoon ci xasaayidam lin qaadati l ujuru wal masaalihu bi tayyi wal jazbi wa inni saalihu donc nitu yàlla joo xam ne saalih la ku baax la yàlla suñu borom da koy may tayyul ard moom ibnu taymiya wax na ko te man ma jàpp ne ak loo baax baax baax gannaaw rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ahlul bayt alayhimu salaam ñoo la gën a baax te imaam ali zeynul abidin nag kenn werantewul ni ci ahlul bayt la bokk salawatullahi wa salaamuhu alayh donc imaam ali zeynul abidin yàlla daf ko may tayyul ardi yow wahabi bi di weddi yàlla da ko mayoon tayyul ardi mu dal di dem dal di denc waajuram di imaamul Xuseyn alayhi salaam waaye mu fa de moom ki nga xam ne mooy ibnu taymiya mu am benn qissa bu mu ànd qissa ju doy doy waar waaye wahabit yi dañuy gëm qissa boobu weddi ñun qissa yi nga xamante ne histoire yi nga xam ne dañ koy nettali moom ibnu taymiya dal di ne wa lihaza jtama alcheikh ibrahim aljaabari dafa amoon benn cheikh joo xam ne dafa tuddoon ibrahim aljaabari ibnu taymiya di nettali mu ne bis ibrahim aljaabari dafa dal di tase kenn koo xam ne da doon dem aji makka waaye moom da doon naaw ci air ba jamono yooyu avion amul waaye moom amoon na xam-xam boo xamante ne da ko doon euh, mun a permettre mu naaw ci jaww ja peut-être amoon na benn secret joo xamante ne secret yonente yàlla Suleymaan la loolu tamit euh, lu mën a nekk la moom mu dal di ne fa talabu minhu an yahujja maahum dégg ngeen histoire bi euh, gudd na trop waaye li si gën a wóor mooy ibnu taymiya saxal na ne am na ñoo xamante ne mën nañu tayyul ard bal am na ñoo xamante ne sax demoon nañ ba am xam-xam dal di naaw ci jaww ji nekkul yéeg avion de waaye dañuy naaw ci jaww ji comme ni picc yi di naawe mu ne wa kadalika al mukashafat taqa'u ba'da al ahyan min awliya illah naka noonu yenn kashfu yi nga xam ne yàlla dafay muuril kiiraay yi pour ñenn waliw yàlla ñu gis ay ay mbir yu war a ñëw ëllëg te ñëwagul ñu xamal ko nit ñi donc loolu yëpp lu sax la donc yow wahaabi yi bii di weddi que imaam Ali Zeynul Abidin nekkul nekkul mooy ki dencoon waajuram donc xamal ne loolu weddi bi nga weddi noonu ay weddi bu weddi boobu da nga ko weddee si sa banneexu bakkan li wér mooy imaam ali zeynul abidin moo denc waajuram ci karaama ilahiya bi nga xam ne yàlla daf koo jox bayan ko tayyul ard donc loolu mooy li nga xam ne moo sax donc mbokk yi gannaaw bi nga xamante ne leer na ci bopp ñëpp ci ñi nga xam ne gëm nañu yàlla gëm yonente bi gëm ahlul bayt gëm sahabatul kiraami ridwanullahi taala alayhim que lii nga xam ne moom la ñuy wax tayul ard lu existe la lu am la te am na ay nit yoo xam ne yàlla suñu borom daf leen ko baaxee tama jàpp ne nag nit ñooñu nga xam ne yalla baaxee na leen ñu si njëkk ñooy ahlul bayt alayhim assalaam ci tayul ardi jooju ci karaama ilahiya boobu ci la imaam ali zeynul abidin alayhi salaam moom mi nga xam ne moom la waliw yàlla yi di def tawasul ci moom pour am seeni mbëbët moom ci la dal di def lu muy def yegg fu mu war a yegg génn fu mu nekkoon kenn xamul nu mu génnee ba yegg ci Karbala ci xef ak xippi mu daldi di denc waajuram di imaamul Xuseyn alayhi salaam mbokk yi lii leer na ki koy weddi mooy koo xamante ne amallahu basarahu fi daarayn yàlla suñu borom dafa daldi di gëmmal da ko def gumma ci àdduna ak mënul gis du basar bi mooy gis du batam du basiiram du xolam kooku rek kaa koy weddi waaye képp koo xamante nit yàlla la du ko weddi bal nga xam ne da ko doon weddi ab wahaabi sëriñam ñi nga xam ne jàpp na ne ay seriñam la di ibnu taymiya daal na saxal loolu day am ci awliyaullahi saalihin te ñun jàpp na ne ab wali yu joo munta doon ahlul bayt ñoo la gën ndaxte ñoom ñooy wali aw waliyul awliya wala awliyaul awliya ñooy waliwu waliwu yépp ci kaw suuf ñi baax ñépp ci ñoom la ñuy def tawasul ñu dal di am demal ci Seydina Cheikh Ahmed al Badawi demal ci Seydina Cheikh Ahmed al Tijani demal ci Maulana Serigne Touba demal ci Maulana Mamadou El Hadj Malick demal ci Maulana Serigne Ibrahima Niass al Kawlaxiyu demal ci Bukunta demal ci cër Serigne yi nga xam ne yi nga xam yépp ci àdduna la muy Cheikh Abdul Qadir al Jaylani yi nga xam ne existé nañu ci kaw bu ñu demee ba dal di am lu ñu war a laaj dañuy dal di def tawassul ci ñooñu nga xamante ne ñooy rijaalul xayb te rijaalul xayb ñu si jiitu ñooy ahlul bayt alayhim salaam ñoom la yàlla may kemtaan yooyu noonu donc loolu sax na déggu na aboor ma leen di nettali benn anecdote joo xam ne mës na am sama diggante ak euh, samay kilifa yu njëkk mooy ahlul bayt alayhim salaam mbokk yi dafa am benn anecdote joo xam ne man si sama bopp euh, ndongo daara ju daw ji taalibe bu xeebu ji eh, dal dina jaar ci kawam mbokk yi yéen ñëpp ump leen Guinée Conakry dafa doon dafa nekk dëkk joo xam ne dëkk ju naat la ba tax na boroomi xam-xamu taksu bi boroomi xam-xam jaww ji dañuy dal di ne presque si mois Guinée da koy taw te man eh, saay su ma fooy dem yàlla day def ma fooy dem ay mois de juillet fekk taw bi day ci lay gën a bëri Euh, bis ma dal di nekk ci benn barab joo xam ni euh, oto amu fa waruwaay amu fa du oto du moto du velo lenn sosu fa lu dul ma dal di utiliser samay pied samay tànk te fu ma war a jëm daa sori euh, fu ma war a jëm lu mu dee dee di ko dox une heure trente wala deux heures temps maximum waaye maa ngi wonte samay ordinateur aw ma mbuus aw ma daara loo xamante ne mën na ko tere bu taw bi tawee te asamaan si moo ngi xiin ba lëndëm kurus ba da ngay yaakaar ne sax trois di du matin nga nekk et pourtant ñoo ngi ci diggu bëccëg bi waxtu zahira ñoo ngi ci digg bëccëg bi ma dal di ne samay ordinateur yi bu tooyee fii dinaa perte sama lépp te aw ma lenn loo xamante ne fii mën na ma ko dimbali ma ne ko yàlla yow rek yaa fi sës yàlla suñu borom yow rek yaa fi sës taw jii di taw nii ñu bëri ñoo ngi koy xaar dëkk boobu ci côté kànkang yooyu noonu xam na eh, am na am am sax boo leen demee ci xasida eh, mawlaaya wa sayidi cheikh ibrahima ñas alkawlaxiyu moo ngi woy ci xasidam yooyu noonu muy dal di woy kànkang su ma juumul su ma juumul eh, woy bi dafa ko dal ne saaqani latifu naxwa kankan wa rabbu ataani maqaama kunkun euh, kankan dafa am ay nitu yàlla yu fa nekk yu am ay mbir yoo xamante ne kawteef la man nag bis boobu kon <laughs> euh, ka man yàlla dafa def dama bëgg euh, wuti xam-xam ma dal di dem kankan léegi nag taw bi nar ma fekk ci yoon bi yoruma waruwaay yoruma dara ci ay montagne ma ne ko yàlla yow rek yaa ma fii sauvé nag waaye nag ma dal di def tawassul ci tuuru ahlul bayt alayhim salaam mbokk yi ci laa yëkkati samay loxo wallahi al azim wallahi laa leen di waatal wallahi ma xam ne léegi li des mu taw tuuti rek rek moo des ma ne ko yàlla maa ngi lay sakku si barke yonente yàlla muhammad si barke imam ali si barke sayida fatimata zahra si barke imaamul Xasan si barke imaamul Xuseyn si barke imaam Ali Zeynul Abidin si barke imaam Muhammadul Baqir si barke imaam Jaafaru Sadiq si barke imaam Muusa Alkaazim si barke imaam Aliyun Irrida si barke imaam Muhammadun Aljawaad si barke imaam Aliyul Haadi si barke imaam Alxasanul Askari si barke imaam Muhammadin Almahdi moom mi may xaar tama yaakaar ajjalallah taala farajahu sharif yàlla duma la taw bi bul def mu taw waaye yàlla teel ma taw bi ba keroog may yegg barab bi ma soxla xam naa ne am na ay jaam yàlla yi ko soxla waaye soxla naa la yàlla ci distance bi dimbali ma ci barke ñii ni du sama baax du sama set du sama dara bal man dama fees dell ak ay bakkaar waaye nag sama xol ku ko ubbi woon yàlla ak yonente bi ak waa kër yonente bi nga fay fekk kese képp dong alhamdulillah mbokk yi ñaan na yàlla maa ngi continuer di dem waaye nit ki moom xam nga ne saa su ne yuraawiduhu baad al afkaar may na ah eh, léegi mu taw de yu demee noonu waaye gëm naa ne yàlla dina nangu ñaan ak lu munta doon mbokk yi deux heures de maa ngi koy dox ba keroog may yegg dama dal di teg sama tànk ci borob cheikh bi nga xam ne moom laa doon dem asalaamu aleykum dugg naa ci bunt ba ñun foofu dàmbgal mooy première buntu duguwaay bi foofu la ñuy wax gimbéeru ci pël xaw ma nan lañ koy waxee ci wolof bi ma fay dugg rek dugg ci saqfu bi rek taw bi ne ko yaa mu daldi di wàcc asalaamaaleykum taw bi commencé dal di taw ma ne ko haada min fadli rabbi a ashkuru am akfur fa man shakara fa innama yashkuru li li nafsi ma ne ko lii de ci ngëneel sama borom la li yonent yàlla Suleymaan waxoon ma dal di ko tudd ma ne ko ndaxam damay doon ci cantaakun ya wala damay doon ñiy weddi mayum yàlla yi ma ne ko de mukk ci àdduna ci cantaaku yi rek laay dal di bokk bokk ma dal di sant yàlla donc mbokk yi lii yenn la ci kaawteef fi nga xam ne dañ koy dal di am ci barke ahlul bayt ci seeni tuur bal imam ahmad ibnu hambal dañ koy nettali lu si mel ni ibnu hajar al haysami ci téeréem boobu def sawaayiqul euh, muhraqa fi raddi ala ahlil bidai wa zandaqa da koy nettali di naan tuur yii ma dal di tudd sànq tàmbale ko si rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba yegg ci imaamul mahdi ajjalallahu farajahu sharif moom imaam ahmad mu koy nettali muy naan boo ko tari woon ci koo xamante ne ab dof la xam nga gars yi dañuy naan dof du wër day tane kooku du tane de day wër dafay wër ndax tuur yi li si yàlla mooñ la te ñoom ñooy xaqiqatul muhammadiya ñooñu ñooy xaqiqatul muhammadiya peut-être bés bu ma yàlla dimbalee dinañu ñëw feeñal wax yenn ci xam yu nekk ci jawharatul kamal ci uyuuni yu nekk ci jawharatul kamal xam nga allahuma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniya mu waxaat ala allahuma salli wa sallim ala ayni alxaqi allati tatajalla uyuun yooyu noonu lan lañ si jublu yooyu wala yenn xam-xam yu nëbb ci yooyu xaqiqatul muhammadiya moom moo tax kawnu bii dal di nekk parce que ci hadisul qissa ñun ci ahlul bayt yàlla suñu borom euh, yonente bi daf ñoo xamal ne yàlla dafa ne budul woon ñi yàlla du sàkk laa samaan mabniya wala ardan madxiya wala falakan yajri wala bahran yasri illa bi mahabbati haula yàlla suñu borom lu dul woon bëgg ñii nii di ahlul bayt alayhim assalaam yàlla du bind lépp lu ñu gis fii du asamaan su taxaw du suuf su tallu du géej buy buy buy du géej bi ngeen di gis nii du dara ci lu existé lépp lu yàlla bind rek ndax bëgg ahlul bayt alayhim assalaam donc may dal di wàccee barke fii di leen di jox dig daje ba beneen wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu